yéenekaay yi dañ koy tàmbalee ki yéenekaay bi nga xam ne moo di bés bi euh, le moom li mu xatee si xatam bu njëkk moo di Dakar euh, ginnaaw xam ne teg bi ndax dafa jàpp fi ñu toll daal a nuru fi ñu toll ni nag na wax ne ba li nga xam ne ci andi moo di Karim Meïssa Wade moom euh, ca Doha la nekk di jubilé nee na nag fi ñu toll yi nga xam ne moo fi war a am 25 février yooyee du fi am Thierno Alassane Sall Sall moom mi nga xam ne Mame Diarra Fam démb da ko agressé fi nga xam ne moo ci assemblée nationale fi ñu toll nag Thierno Alassane Sall moom moom mi nag jàppale ne fi ñu toll ni daal def nee na dafay def li nga xam ne moo di plainte jël beneen yéenekaay wàccal la ci gën a fës jël yéenekaay bi nga xam ne moo di le réveil le réveil moom la mu xëtee si xatam gu njëkk nag moo di fi ñu toll ni nag nee na njiitum réew mi Macky Sall ak ki nga xam ne moo di euh, euh, moo di Abdoulaye Wade ñoom nag fi ñu toll ni nag jàppal ne dañoo bëgg baar maanaam baar yëgoo ba élection du fi am maanaam yéenekaay bi nag buñ ci xool nag fi ñu toll ni nag ay député député pro Macky yi ñoom ñooñu nag fi ñu toll ni dañoo nekk di défier li nga xam ne daal moo di sept sages yi nga xam ne ñoo nekk ca conseil constitutionnel yéeni kaay bi nag leneen li nga xam ne moom la ci wax moo di fi ñu toll bi moom la bëgg bëri bëri ak lu mënte xew jàppal ne dinañ demee élection le 25 février 2014 beneen yéeni kaay wàcca la ci gën a fës dañu jël yéeni kaay bi nga xam ne moo di Le Soleil Le Soleil la mu waxatee si xatam gu njëkk nee na nag commission d' bi nga xam ne daal moom lañ doon créé fee nga xam ne moo ci assemblée nationale moom nag lam ci euh, moom la ci andi si li bi nga xam ne mi moo di la Soleil moom nag lam ca wax moo di waaye Yewwi Askan Wi ñoom nag lañ ca wax moo di dak ak lu mënta xew jàppal ne élection moom dinañ ca dem jëlaat beneen yéenekaay wax ca la ca gën a fës jël yéenekaay bi nga xam ne moo di direct news moom nag la mu xëtee si xëtam gu njëkk moo di élection ya nga xam ne moom la ci jëm moom nag dafa jàpp ne fi moom report moom mënul xew ndaxte te jàpp ne boobu ci wax moo di dak Sénégal diggante moom moo di 1962 euh, bi nga xam ne daal moo amu ca maanaam taxul woon ñu reporté élection yéeni leneen la nga xam ne moom la ci andi moo ni nag entreprise euh, cool yi nga xam ne judd woon na fi moo di l'assassinat bi nga xam ne moom lañ doon wax ci maître Babacar Seye ba ki nga xam ne moo di Doudou Keba moom moomee démissionné woon yéeni kaay bi moo di boobi nag taxul moom moo di euh, bu nekkee ni njiitum moom moomee dafa di élection euh, ko def comme ni mu ko fi defee woon en ne bu nekkee ne Abdoulaye Wade moomee dafa reporté élection yi dañuy taxawal maanaam li nga xam ne moo di gouvernement parallèle maanaam daal njiitum réew mi day Diagne wax ca la ca gën a fës le quotidien le quotidien nag moom la mu xatee si xatam gu njëkk moo di ba tey si commission d' enquête parlementaire bu nekkee moom nag la a mu xatee si xatam gu njëkk moo di ba tey sa la mu teg moo di jamono gi dak mën nañu wax ne feec daal ci assemblée nationale la ñëw moom naka la mu jàpp fi ñu toll nii nee na PDS daal dëgg-dëgg bu ñu xoolee fi ñu toll nii naka la mu ca jàpp moo di euh, PDS fi ñu toll nii dafa nekk di def cheval de Troie wu Benno Bokk Yaakaar ndaxte ñu toll naka sukkandiko si maanaam si waa bu ñu sukkandiko euh, euh, si yéenekaay bi nga xam ne moo di yor yor moom nag la mu ca wax moo di PDS ak Benno Bokk Yaakaar dañoo baara yëgoo ngir liquider ki nga xam ne moo di candidat wu Benno Bokk Yaakaar bii di Amadou Ba jëlaat a bés dañu jël yéenekaay bi nga xam ne daal moo di l'informateur l'informateur moom la mu xëtee si xatam gu njëkk Khalifa Ababacar Sall moom mi nga xam ne daal moo di candidat wu taxaw moom mi euh, na moom moomee daal day dem second tour tey nag bu fa demee dafay gañ euh, dafay gagné euh, si si la yëkkati maanaam kàddu yu mel yooyee ñu jël bi ne yéenekaay wax ca la ca gën a fës Walf nga xam ne dafa jàppe ne jomaay mooy seex te seexin mooy jomaay moom nag lam ci wax fi ñu toll nii euh, nga xam ne euh, moom nag la mu jàppee dem ci assemblée nationale nee dëgg-dëgg euh, bu ñu xoolee la xew ci assemblée nationale jàppal ne rek moo raw théâtre te it nag moo raw li nga xam ne moo si marché ngelaw ndaxte dafa jàpp ne nag xeex bi nga xam ne daal moo am fee ci assemblée nationale mënoon na faa ñàkk ndaxte bu nekkee ne kenn ku nekk débat wu di dee la yor ñu jëlaat benn yéenekaay wax a di les échos les échos la mu xatee si xatam bu njëkk euh, maanaam Ousmane Sonko ginnaaw gi nga xam ne moom moomee daal génne nañ ko si li nga xam ne moo di élection yi euh, ay avocat euh, gi nga xam ne nag coow la ko toppoon moom ak Mame Mbaye mu mel ni ne ay avocat Ousmane Sonko ñoom ñooñee bàyyiguñu ba tey ba tey yéeni kay bi nga xam ne moo di les la mu ca wax moo di acte moom fi ñu ni nag jàppal ne fekk nañ ko bu nekkee ne les sénégalais dañuy nelaw jàppal ne député ñoom ñoo ñee ñoo ngi seen yoon ngir reporter li nga xam ne mooy si élection yéeni kaay bi nag leneen li nga xam ne moom moom moo di candidat ba tey si yéeni bi nga xam ne moo di Les Échos lu doy waar loo xam ne am na ginnaaw gi nga xam ne gendey Sénégal yi dañ doon ñëw Aliou Cissé moom mi nga xam ne moo di coach équipe nationale nationale jàppal ne fa nga xam ne mooy ci aéroport ba daa jàppal ne nag ay supporters dañ ko doon yuuxoo loolu daal moo gën a fës ci li nga xam ne moo ñëw si les échos ñu jël beneen yéene kaay waxta la ca gën a fës vox populaire moom nag lam ci wax moo di jeu de trouble nee fi a des ngir ñu tijj ah, ah, nga xam ne moom la ci andi moo di jomaay fay ah, ginnaaw gi nga xam ne daal ki nga xam ne moo di avocat am déposé na li nga xam ne ngir ñu bàyyandiku ngir mu dem battre ji li nga xam ne moo di campagne jàppal nag fi ñu toll nag yéeni kaay bi lam ci wax moo di le doyen juge maa xam jàllo moom moomee jàppal ne nangu ko l'union européenne ba tey nag fi ñu toll ni lu toll si 32 observateur yoo xam ne a euh, ba tey wax ca la ca gën a grand panel moom nag ba tey si candidat wu euh, bi nga xam ne la ñoo moo di Diomaye Faye wala it nag coalition Diomaye 2024 yéene kaay bi lam ca wax moo di fi ñu ni euh, ginnaaw gi nga xam ne nag fi ñu ni Diomaye moo ca prison ba ba jàppal ne missionnaire union européenne ñoom nag fi ñu toll nii nag nee nañ bëgg nañu euh, bëgg nañoo gis bépp candidat rawatina Diomaye Faye moom mi nga xam ne fi toll nii nag moom ca kaso bu ñu sukkandiku si yéen bi waaye union euh, waaye daal ñoom lañ ca wax moo di dinañ euh, ci gën a koppar gi nga xam ne daal moom la candidat yi di utiliser ngir mën a campagne bi wala it nag ngir wër Sénégal yéen bi nag lam ca wax moo di nag pour nga def campagne bu la daal jàppal ne euh, pour nga def ko foog nga am lu toll si euh, deux moom nag la moo di maam ndax moom euh, compétent na ngir jiite li nga xam ne moo di assemblée nationale ndaxte yéeni kaay bi lam ci wax di bëri na xiiroo ngaayo yoo xam ne daal gis nañ ko fi nga xam ne moo ci assemblée nationale yéeni bi nag lam ci wax di nag maam Amadou Mame Diop nekkul dëgg-dëgg l'homme qu'il faut wala nag maanaam ki nga xam ne moo waroon jiite li nga xam ne moo di assemblée nationale jëlaat ñëw si la turbine moom nag la mu xatee si xatam gu njëkk euh, euh, jamono gi nee na euh, fi nekk di xew ci assemblée nationale mën nañoo jàpp ne ngir randal li nga xam ne moo di si élection yi Bougane Gueye Dany jamono gi ma ne bu nekkoon soxna jàppal ne ñëpp a koy wër ndaxte Bougane Gueye Dany fi ñu toll ni daal ginnaaw gi nga xam ne nag waa Pastef wala nag coalition Diomaye ñoom ne waa purit ñëw nañ jàpp ne toll ne Khalifa Ababacar Sall ñëw na Pape Djibril Fall ñëw na Anta Babacar Ngom ñëw na ñoom ñëpp jamono gi nag euh, moom mooy chef jëlaat beneen yéene kaay la ci gën a dañu jël yéene bi nga xam ne mooy si holding euh, fortune bi nga xam ne moo di Eliman Dia bu Galadio moom nag la mu ci moo di fi toll ni nag si euh, xayma daal jàpp lu toll si un milliard yoo xam ne dañ ko faa jël yéeni eh, dem ca beneen yéeni kaay wax ca la ca gën a fës ñëw si Turbine Sport Turbine Sport moom la mu xëtee si xatam gu njëkk moom daal eh, Sénégal ginnaaw gi nga xam ne ñàkk na si diggante Côte d'Ivoire yéeni kaay bi lam ca wax moo di nag dëgg-dëgg buñ ko xoolee Lat Diop moom mi nga xam ne daal moo jiite woon wala nag mooy ministre sport bi jàppal ne benn jégul li nga xam ne moo di équipe nationale bi beneen beneen bi mooy ña nga xam ne ñëpp da yóbbu jàpp ne clientèle politique la yóbbu yéene bi leneen li nga xam ne moom la ca euh, gën a wax record moom nag laaj la samp Aliou Cissé euh, gi nga xam xam ne doon na capitaine si équipe nationale waaye nag doon entraîneur andi fi raaye bu njëkk boo xam ne Sénégal am na ko si Coupe d'Afrique yéen bi nag lam ci wax moom moom a ba tey si yëfi assemblée nationale la ci ñëw ndaxte lam ci andi moo di daal jàppal ne PDS ak bokk yaakaar yi nga xam ne fi ñu toll ni daal ñoo def baara yogoo yeewee askan bi moom fi ñu toll ni nag dañu refuser siège si li nga xam ne daal moo di euh, commission bi nga moom la ñu teg ba tey nag bu ñu xoolee si yéeni kaay bi leneen li nga xam ne moo ci gën a fës nag fi ñu toll nii Karim Meïssa Wade moom moomee nga xam ne moo di victoire leneen nga xam ne moom lañ cee jël moo di Odia Odia moom tey la mu xëtee si xëte mu njëkk moo di juge nga xam ne fi ñu toll nii ñoom la ñu joxoñ baaraamu tuuma leneen li la mu ñëw moo di xaar yàlla bâtiment bi nga xam ne daal moo fa daanu ba lu toll si juróomi person ñàkk gum fa seeni ba kenn lu toll si onze personnes yoo xam ne am nañ ca ay gaañu gaañu njàbbi tey li mu gën a ñëw si li ñëw si à la une des journaux